y no caí si sur Kewel Info di leen nuyuwaat bu baax a baax ba tey ñu ngi école de lutte Balla Gaye gannaaw ba ñu waxtaanee ki xam te ne moom mooy yéen bu diis borom le 4 février du nuyu coach Lamine Faye tey moom daa ñëw def arabisan xaw euh, bu baax a baax Fils ñu waxtaan ak moom tuuti rek ci combat yéen bu diis à ah, instant bi fu mu nekk ndax dégg na ñoon ñoon Fils de Balla am na combat ba xam te ne daa waroon taxaw mais combat bi da koo rëcc lay ziar. Fama sant samay ñaari waajur bu baax di sant sama sëriñ sëriñ Moussa Nawel di sant njaboot sëriñ Moussa Nawel yëpp di sant waa Géejawaay ah waa amoo 4 5 6 AKD ñëpp di sant waa école du Balla Gaye ku si mel ni ñoom Lamine Gora suñu si Mbaye Samb ah sama gars yi si mel ni Sara sama patron sama lépp mention spéciale ci man ak dëgg na yàlla gànna Gora Pata Omaga yéen bu diis ñoom ñëpp waaw ah, di ñaanal yàlla yan yàlla may kon ndam ci combat bi mu jëm. mais ak moom dañoo gis complicité bi ndax Fils de Balla sax li ko yóbbu ci ay face à face yombul mais day gis chaque jour yaa ngi gunge ki nga xam te ne mooy yéen di ànd ak moom yéen ñaar seen complicité la. yan maam moom lënd ak mari la su may bëre noonu lay def man tamit su noonu lay def waaw maam moom bés doxu suñu diggante daal maam moom. waaw nday bëre sax mu ngi dee sama gàllaaj di ko jox moom moom tamit wax noppi. bu dee xale boo xamante ni macha allah dafa nekk si yoon muy prince gis nañ ni fan yi ci ay victoire yi mu teg tegle ñu gis si yenn diis bii passé génn na ci benn journée boo xamante ne wane boppam mais ñoom ñaar ñu nekk ay adversaire de taille mais seen combat bi dafa am bari coow. mais neex la combat bu balaa nga xamoon combat bi neex nga tëggoon ko grand combat sax ku ko tëggoon grand combat da nga bu neex ndax dañoo tolloo tolloo doole voilà prince tamit champion la dëgg nga ne yàlla nekk relève Pikine yenn bis nekk relève Guédiawaye moo tax combat bu neex la. moo dàq si journée bi nag combat boobu. Ah moo dàq si journée bi combat boobu. Ah hmm. mais à part loolu ñu gis ne Fils de Balla jóge na ci combat boo xamante ni mën nañu wax ne kon li ma lay tooñee rek ko fàtte sa carrière sa combat ak Lac Rose dégg naa sax dañ ko bëgg a tëggaatoon est que pare nga pour. waaw avant tout dañuy ñaanal tamit ñaamu ndaw ñaamu ndaw ñu ngi koy ñaanal ndam yàlla may ko ndam tamit si bés bi incha allah ah ñu ngi koy ñaanal ko ndam Mm-hmm. mais bu nga jógee si combat bi ba tey ñu proposition yaa ngi bari wala yàgg Lac Rose dégg naa ñu ne yàgg ak Lac Rose dañoo a tëggaat combat. non am na ay proposition am na ay proposition wax dëgg naa ñu ngi may proposé am na ay ku mu war a bëri dañ bëri. Mm-hmm. mais tey combat ban ban leçon nga ci tiire ndax da nga daan bëri di daan gëj ngaa daanu ñu gis combat bi match la. waa phase jubilé ñoom ñoo daan gis nañ sax dégg nañ wax ji mais lu ci ëpp état physique euh, Fils de Balla dañ ko critiqué mais tey combat bi ban jàngat nga ci def sa combat ak <laughs> jàngat yu bëree bëri bëri laa def xam nit ki moom du chaque jour ngay nekk du chaque jour nga war am man dama doon daan ay doomu jàmbur ah plus de ban année laa xaw ma laa gëj a daanu 2015 xaw ma 2014 laa gëj a daanu ba léegi te yàlla na gën a continuer loolu laa ñaan yàlla mu gën a continuer ma gëj a daanu. mais match si nii rek laa wax ji bëri ku nekk di critiquer lii laa Fils de Balla li su la waxee dëgg barke Serigne Touba Mbacke sama entraîneur yi doon na seede li ma entraîné si combat bi sama combat góor soog ak général Malick entraîné wu ma ma waxee a baax ah, ma jaaxal combat bee laax li ma daj ci combat bi mosuma ko daj ci combat bi Lamine Gol mi doy na ma seede sama combat kon góor soog daanaka. bu dee un mois un mois et demi laa si entraîné bii moom bii trois mois la xaw ma mois laa ko préparé. bi critique bi dafa bari. man critique ñoo gis loolu mais man gisuma benn loo xam ne bon na si man gars yi gis sama gars yi moom san laa mën la ñor wax kenn mënu leen tere wax. xam naa boobu dama doon daan moo tax. tey bu ma daanoon tey. Hmm. loolu yëpp du ko dégg. mais moom ba nga jógee voyage ñëw ba mu la xam ne combat bi la lañ étudié ko. waaw lu tax kon daanuñu ma léegi ñoom ndax bu ma étudié combat bi daanuñu ma ba mu jógee voyage ngeen lañ ëtt jël ndax daanu ñëw. d'accord ah. mais contact bi ñu wax est a que réellement Fils de nag contact nga. contact naa bay bëgg a dee Lamine Golo ngi nii dama doon contact su di contact ngoon wala nga laaj ñoom Jackson sa mbokk la ah boo woowee Jackson nga laaj ko ñoom Jackson dama doon jàppale may contact suba di contact ngoon a ah, nga jóge ci combat boobu kon li nga expliqué léegi amaat yeneen i combat euh, a de Balla dañ doon dox combat am ak Franc. waaw waaw ñu ngi doon dox wax dëgg yàlla daanaka nañ ko moom mu ne ñu daanee incha allah gars yi combat boobu taxaw far yàlla ñu mat suñu nag man moom saay nekk moo fi di viser benn mbër nekk moo fi di viser benn mbër boo xam ne la ma ne diw bi non non ma làmb boole la ma bëre du ma xaar ndax xale la làmb yaakaar ba am ñu topp sama ginnaaw kon du loo xam ne dama nekk di xaar ay benn combat wala benn adversaire non ma làmb boole dinaa bëre ak yow. est-ce que nekkul match nul bee tax mu dem jëli loolu loolu am la wax dëgg na yàlla. loolu affaire am la quoi man moom saa bu jotee rek dinañ bëri yàqamti wu ma ko sax saa bu jotee dinañ bëri man moom. mais euh, le fait que mu jël bombardier euh, comme yéen ñi nekk fi combat boobu ñu gis ni xaaruñu ko woon Franc ak bombardier ñu gis ne këpp nañ ay yalwaan yu bëri. waaw dëgg la wax dëgg na la këpp nañ yalwaan sax bu dëgg bu dëgg neexee rek këpp nañ yalwaan yu bëri bu loolu dëgg fa cointre bi ngeen toog doon xaar. gis ko man pas man sax man moom mooy ma wax man vision ma benn mbër hmm. moom moo vise benn mbër ne benn mbër la bëggoon lu ma visé benn mbër man ku la yow moom moo visé benn mbër di ko xaar mbër yooyu dem am combat nga dooga a détourné bëgg dem tourné mais man ku ma làmbool la may bëri kon su bëroon man su ma bëroon ak moom kon su bëri ak moom dañuy waxante dëgg ba mat jee Franc tamit loolu bu ñu waxante dëgg rek loolu du combat quoi bu te dire vrai rek Bombardier champion la def na lu mu def ci làmb bu mu egsi ba fii bëgg a yàq carrière am. Géant Komar suñu grand la suñu pepp suñu père suñu lépp la dañ koy wax bu mu egsi liggéey bu fii bu koo yàq je comprendre waaw luñ koy loolu lañ koy wax quoi ndax combat am na combat yu gënoon neex yu waroon taxaw combat yooyu combat jànk yi Quench Franc dañu war a bëre man ak Franc dañu war a bëre man ak Quench dañu war a bëre combat yooyu yëpp la voilà kon léegi luy problème bi ku ne grand bi bëgg a yàq affaire boobu yéen da ngeen war a bëri seen biir. ñun dañoo war a bëri suñu biir ñun xale yi ñun ñu war a bëri suñu biir barki yàlla ñu war a bëri suñu biir léegi kenn ku ci génne nag kenn dem léegi ku dem nag kenn du toppaat sa ginnaaw la nga war a bëri xale yi mais tamit mënoo bëri douze combats tamit mën la sumbaay bëgg rek fedde ko ne da ngay bëgg a yëg si kaw ni nga bëgg si kenn bëggul bëri ma concevoir nga taxaw rëg-rëg bëri Bombardier daan ko nga woote devant toog di moom di xas Bombardier ba pare ëlbi di ko ñëw jox Bombardier nga jël ko dañ wax na dëgg dañ wax daa juum ah xam naa dafa xam naa xam naa dafa juum ci communication am naa loolu la mais wax dëgg ne yàlla man mënu ma topp di xas nit ba pare ñëw lu jox ma ko ma ma koy jot a bëri. ah mais loolu seen affaire loolu moom seen problème wax dëgg ne loolu moom man moom du ma si dugg waaw bu leen neexee ñu xaari ko bu leen neexee ñu xaari ko. ñoom la seen la tegaloon ñooñu tegal a Bombardier doo jël Bombardier. wax dëgg ne yàlla def ñu def si ko ba léegi wax dëgg ne la kooku kooku làmb la uh-huh. deux fois roi des arènes mosoo dégg ñu ne mosoo mu ndax mos nga dégg mbër bu ne damaa bañ bombardier wala nit bu ne damaa bañ bombardier mosul am si àdduna te du mos am moom daa rafetal carrière ba fii na nga rafetal rek mu jeex benn yoon na rafetal rek moom amul benn woy bu ñaaw woy bu rafet la moom kooku wax loolu rek laa koy wax waaw mais à part ça kon am na yeneen adversaire yoo xamante ni comme que booyee ne am nañ combat ah sa combat Quench bëggoon nañ ko de affaire cachet <laughs> moo taxoon combat bi yàqu est ce que tamit ko doomu daaw am na combat Quench moo fi des est ce que tamit mën nañoo xaaraatal combat boobu fii sa baal est ce que réellement nag combat bu xalam lébu gi ndax instant bii xiif gi mu xiif ku mu jël xiif soo. Quench xam naa ne ma fay si moom bëgg na bëri. <laughs> mooy ki ko ku baax la nag wax dëgg ni yàlla ñëpp a ko yéene bëri nag wax dëgg ni yàlla ndax man mun ma concevoir nga am bu toll noonu ba ginnaaw. làmb tamit làmb dafa waxul dëgg quoi làmb gars yi yenn saa dañuy rey làmb da xam ne ay li muy dérén si mbooloo kenn xamul lu mu toll ñu ko fi dem di xoole yeneen mbër. kon si su yoon daa a bëre warul ane moom dëkk topp ci ginnaaw xam nga gars yi ay ay koño topp moom moom dëkk. dëkk lu mu topp ci ginnaaw muy bari ñi kon il est temps tamit gars yi may ko chance bu bëri tamit. est-ce que tey bu ñu la joxaatoon avance am dina gën a yomb. man pare naa pour bëri ñëpp ah, ñoom pare naa si. bi ma paree. man pare naa bu ñu ma wala ñu waxal ñu war a waxal pare naa pour na benn combat tamit maa ngi ko dégg sa combat ak Diène Kaïré. yëpp combat am na yoo ci gën a bëgg de. bañu benn. mbay guy gi. non mbay guy gi moom mbay guy gi sama waay la mbay guy gi moom noonu luñ bëri waat yaakaaruma ko sax waaw bu dul dara sax ñoo bokk papa Dieye waaw noonu la may jàppale kon max moom ruus na war a jàkkaarloo sax ku ne dem si Dieye naa la koy jàpp moo tax guy gi moom du ma bëre moom quoi wax dëgg yàlla. ñu gis yéen xale yi a ngi bëre macha allah làmb am na jéego mais tey Fils la Balla la gis ci lamb loo xam ni neexu ko ci lamb ndax gis nañ ni wax ji bari na ci lamb ba tey ba tey nit ñaa ngi bëre mais yéen booy yi gis nañ génération bi lépp tey moom ren fël nañ di bëre par rapport ak euh, saison yi waaw làmb ji moom boo bëggee def armature neex na trop surtout ma saison ren bi moom lépp impact quoi wax dëgg yàlla gars yi ñu bëree parce que yéen ngi yokku ah mbooloo mi ngi yokku ah te borom te loolu lañ bëgg làmb ji dox na mi ngi neex wax dëgg yàlla. Mhm. lépp a ngi yokku na. yaa ah, bu yokkul gars yi duñ bëre. Mhm. duñ bëri yàlla dee waaw gars yi dañoo téewoon dañoo téewoon xaw ma téewoon seen loxo mais léegi ñu ngi yokku. li may jeexale mooy ñaabu ndaw ak euh, kii nan nga ko gisee Zarko gis nañ ni ñoom ñaan ñëpp dañoo wàññi poids ñu dégg Zarko li mu wax nee na ni mu defoon ñee daf ko bëgg a corriger ba pare soog koo daam ci lu gaaw. non Zarko loolu moom mënu ko moom loolu moom mënu ko bu ne day corriger boobu moom mënu ko. boobu mu si yoonam mbër la la te déggal na ay magam. déggal na ay grand frère am ku si mel ñoom dund seen waa équipe déggal na ñëpp waaw ñu koy ñaanal yàlla yàlla may ko ndam ndam bu kawe njortam nag wax dëgg ne yàlla combat baax la ci moom wax ko daane moom lambam day tijjeeku waaw te loolu lañ koy ñaanal nag wax dëgg yàlla lu dara suñu rax la ku baax la bu ñu amee combat yi ñoo jàppale man boobu bële maa fa bëggoon dem mais sama loxo moo doon métti moo tax sama loxo moo tax mënu ma dem jàppale ko mais maa nii si moom laa jëm nii coppun ah. entrain wala nappaaje. entrain ça veut dire. Balla euh, loolu suñu entrain la suñu entrain la ci waaw. Euh, kon nappaaje bi na oh, nappaaje Balla ku la daan 2013 nga ne da nga koy nappaaje. loolu mënut a nekk. comme. neen différence bu différencier bu jour ba mu wane moo nekk ci ay dynamique de victoire <laughs> ah gën a métti fan. <laughs> ngay bëri mbër boo xam ne dafa jóge ci ay match niir wala nga bëri boo xam ne nga cee defet ah. non pression ngay àndal ndax yow da nga naan kii bu ma daanee yàq sama yoon yëpp ndax ndax yow ci dynamique yi nga nekk ah. bu la daanee da nga naan non day yàq sama yoon ah. moo tax moom mooy gën a nekk ci Balla Gaye mooy gën a nekk normal préparation Tapha Tine ci pression ci pression la ne ndax boo xoolee ñi mu daan Boy Niang Bombardier Eumeu Sène léegi mu daane bu léegi tey bu ko Balla Gaye daane daanaka yàq na li mu liggéey yëpp te ñu ngi ñaan yàlla Balla Gaye daan ko incha allah le 14 mm. le 21 juillet mm. léegi alaaji Modou Lo mu sell mi léegi Modou Lo. yaa oustaz. yaa moom daa mel mi ngi màkk de. mi ngi umra yaa oustaz. yaa oustaz ak kool. non kooku moom mooy li ma wax si bombardier rek laa wax ci moom moo digg ni kooku ñooñu ay icône lañ ay Modou Lo ay Balla Gaye Ama Baldé ay Boña ñooñu ay kooku la Ama bu moom bu dul dara wax dëgg ni yëpp champion la da booloo dara wax nag day bëre daan pare mel ni bëriwul dëgg na yàlla du jubile du def dara comme gars yi daanay nekk fii di feet moom non non gisoo mu daane pour nga ko sa problème bu daane lay julli lay njëkk a def julli soo pare bu demee la ji jeexee mu fay bor yëpp doo ko wax ak gars yi nag <laughs> yaa oustaz ñu koy ziar bu baax nag di ko ñaanal ci umra ci màgg gum ne mu ñaanal ñu ñun ñëpp waaw amaan mbégte contentement pour yéen doon suivre sur Kewel Info ñu dalaloon ki xam te ne moom mooy Fils de Balla occasionnellement mu nekk ko xam te dama ko soroxoo ma ma ki sonal ma di ko jaajëfalaat nag bu baax a baax a baax di la wax lan mooy sa kàddu gu waaw damay sant ñëpp di sant waa Géejawaay man Géejawaay ñun amuñu lu dul Géejawaay ñëpp képp ku ma doon jàppale si combat bi maa ngi lay sant bu baax sama gars yi ñoom daam sala borom oto yi Sada sama patron ah, Lamine Goro yan bu diis gànna Goro Pata waa amoo si sama gars yi ñëpp di nuyu tamit sama soxna bu baax ak seen waa kër sama góor yi ñoom ñëpp maa leen di sant bu baax a baax di sant tamit suñu waa kër sama mag yi ku si mel ni papi Alain Ismaïla Aliou Ndiaye ñoom ñëpp ah maa leen di sant ñoom ñëpp waa kër gi yëpp bàyyiwuma kenn di sant ñëpp képp ku may jàppale si combat bi rek sant naa la bu baax a baax a baax di la sant yow tamit sama doom nga sonal nga ma lakkal nga ma joxuma la dara kon yaa ma mooy émission bi. yaa ma sàcc émission 5000 la léegi. wala yaa ma sàcc. émission 5000 la émission 5000 laa koy defee léegi. yaa sàcc sama la. léegi nay neex. waaw ah, baax na léegi nag fu ma la gis naa la gërëm 10 000 nga may fay. fu ma la gis naa la gërëm tey fay nga 5000 boo ñëwaatee 10 000 ngay fay. ñoo far